fan yii si lan la nekkoon ak man naan ma dangaa war a dugg ci théâtre yi waaw danga nga war a dugg si théâtre nday maam ma bàyyil bëgg góor topp sa jëkkër ji rek topp sa ma ni ko du loolu man maa bëggul di dem ak dugg ak génn ndax xam nga rek yaa ma gën a xam boobu xaw ma woon waaw Aziz daal dañ koy ñaanal yàlla li ci takk ak li ciy waaj a takk ak lépp lum mu ci xalaat yàlla na ko yàlla leeral ci barki Seydina Muhammad yàlla na yàlla leeral lépp yàlla na yàlla leeral lépp justice ak Aziz Dabala justice rek ndax nabu suñu nabu la Aziz suñu Aziz la yàlla nag moo xam yàlla na yàlla leeral lépp kese donc jërëjëf kon je pense que Ali euh, kàddu gi benn la koo ci mën di jël euh, la muy seede ci ki nga xam ne moom mooy Abdoul Aziz euh, Ba ñu gën koo xam ci Abdoul Aziz Dabala benn sedd bi lay doon ci moom na ñu bëri tey bu ñu demee ba bëgg aar wala bu ñu demee bay dimbali seeni waajur moom Abdoul Aziz da cee joué lu am solo. te yàgg na ci euh, ndax boo xoolee euh, ni ko euh, Pathé décrire nga xam ne moom yàgg naa def li nga xam ne moom mooy lu baax. Mm. te da cee nekkoon depuis bas âge. Mm. ba tey mu dem ba aar. Mm. di ko wuy si ñu daal di koy jël mu dem wuy ji boroomam. mu nekk rek acte bu ñaaw ñoom nag la sàkku leen képp la mooy justice def li nga xam ne moom mooy liggéeyam moom mooy yoon def li nga xam ne moom mooy li ko war ba ñii nga xam ne ñoo ñoo def liggéey bu ñaaw bii ñii nga xam ne ñoo bu ñaaw bii ak ñi nga xam ne moom mooy moom mooy Abdoul Aziz ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def jëf ju ñaaw ji nii ñu feeñ ci bëccëgu ndar kàpp Ali je pense que ñoo ko dégg ndoor ci yenn kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci kaw ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz dëgg la ñoo ko dégg ndoor ku yëkkati kàddu la nga seede si moom lu baax ndax yàgg na si aar ba muy nekk xale ànd ak ñu ma xujj ak ñeneen ak ñeneen nga war a xam ne ku baax la yàgg na si aar waaw Aziz Dabala nga war a xam ne nga war xam ne ku baax la te yàgg na si aar te boo ko aar riwisu fa la dëdd fa la dëddoo parce que soo xoolee si mujjantal gi kili bëri moo ko fecc kili bi bëri moo ko fecc waaw loolu nag waaw Momo Dieng Viviane Mouhamed Niang grand théâtre loolu yëpp rek ndeysaan te ku bëggoon yaayam la ku bëggoon yaayam la man mi invité naa yaayam woote ay famille wootee mu jooy ba sonn waaw émission boobu ñëpp seetaan nañ ko muy jooy mu anniversaire ba mu jooy def décembre demoon nañ ba ba foofu noonu seen koñ fu mu ko defee waa dëkk bépp ne wuy si ko nga xam ne gars yi bëgg nañ ko trop trop trop ku baax la ku baax la waaw parce que nit ñi am na ñoo xam artiste duñu ànd ak ku baaxul waaw loolu artiste duñu ànd ak ku baaxul boo xoolee képp ku xew la rek wala nga xam ni événement la rek grand théâtre fu mu munti doon alburax Aziz ngay xalaat kon xamal ni kon kooku ku baax la hmm. te bu doon ko bon est-ce que ñoon dinañ ko woo di ko fecculoo wala di ko defaloo ay chorégraphe moomoo jeen bi mujjee na boo noppi ndeysaan boo xoolee leen si sol hmm. te boobu dégg naa ku ko bëggoon kon artistes yi duñ ànd ko bon. dëgg la kenn ku nekk ak sa métier nag. dëgg waaw mais métti na lool. ba pare moo yi am na ku ma jëlee woon démb sama grand frère la ñoom ñoo gérer woon bu man lu mu seede si moom lu baax la lu gars yi di ko waxal naa kay affaire góor jigéen kooku li mu wax si moom nee na nee na bokk nag moom six mois Sambour Mbour ñu nekk si tournage mais mosul gis jikko boobu ñun si moom seetlu na ko côté bu nekk te moom ku xam nit la. comprendre nga nee na day tëdd ba guddi gis mu yeewu gis ko muy julli kon kooku luñ ko seedeel nii ah, nekkul si moom si lu ma yaakaar si lu mu wax parce que koo bokk si pour ngeen fanaan yéen ñaar te kooku koo xam-xam ne Cheikh Omar koo xam-xam ne moom dafa xam nit si lay yëngu waaw kon su waxee loolu rek kon gars yi war nañ ko mën a gëm kene liñ koy jiiñ nekkul si moom parce que kon nekk ak six mois si benn chambre fekkoon tey yenn yi dañ koy wax di nga def yenn gestes yi te li wax dëgg la te affaire góor jigéen nekkul si ay solo ak xeesal nekkul solo da ngay gis pëggalam jëmm bu bu ceene nga gis ko ndekete kooku borom ñaari turi la kon nekkul si ay solo ay question yooyu noonu waaw d' accord jërëjëf Henri comme ni nga ko waxee naam Sénégalais yi bari nag ñu ngi doon wax naan lan moo tax euh, boo xawee siiw. waaw euh, dem dëkk yow kese. ñu bëri ni ngi posé la question naan loolu wóorul euh, bu ñu ci bari sax ñu ngi jël ay li nga xam ne mooy seen matukaay. Euh, ci li ni mel waaye je pense que itam li war am moom. soo gisee soo gisee côté boobu noonu soo gisee artistes soo gisee artistes yi soo gisee yi ak mbër yi yenn gars yi dañuy nekk seen koñ ba tur day nekk seen koñ yi day nekk seen koñ yi ba am tur mais cest à soo gisee ñuy génn da laaj dañuy pour récupération parce que artiste artiste guddi guddi guddi activité am guddi la. ba 5 heures du matin tey jii fekkee sa kër nga nekk wala sa koñ doom temps de récupération boobu noonu ñun ñi am nañ si ay litre ba mu joree dañ leen génneen ngeen dem ngeen dem luwee ji ñoom luwee ji mais nekkul ku luwee ji rek pour lu bon moo tax moo tax jug noo la demee rek moo tax ñoom ñu luwee ji c'est ça jërëjëf kon nag mi ngi noonu mbokk yi ñu taaxeerlu boo ko defee itam ñu mën a xam exactement euh, fan la euh, mbir yi di mujjee ndax nag ñu ngi ñu doon xamal ne fi euh, moom mooy septième su euh, succès bi moom itam daal dinañu koy euh, jàpp ki ko boole nag kenn ku dul way juróom bu góor moom moo ko daal di boole kon nag yëf yaa ngi noonu dafay gën di xóot enquête bi euh, jeexagul benn yoon ndax saa yoo xëyee rek di nga dégg lu bees ci mbir mi lee ñu ngi leen di fàttali na ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci palais de justice bu Pikine Géejawaay li waral suñu teewaay nag moom mooy kii di Nabou moom lañ fi indi ba 11h38 jotee fi nga xam ne moom mooy ci bilee moom nag dañ ko daal di indi fi nga xam ne moom mooy ci euh, palais de justice bilee moom ak euh, six personnes comme ni ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee waxee ci biñ koy wàccee di ko dugal fi nga xam ne moom mooy ci euh, cave bilee boobaak léegi nag ñu ngi taax taaxeerlu waaye boobaak léegi itam ñi nga xam ne ay xaritam lañu am di jàmmam jëkkandoo wala sax ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom bilee millier boobaak léegi ñoom itam ñu ngi fi ànd ak ñun ci bi jotaay ngir xam exactement euh, kan moo ci laale kan moo ci taqe ak itam kan lañ ci dugal te bokku ci ndax dugal nañ ci ñu bari ñoo xam ne ni seen yoon nekku ci nit ñi toog ci réseaux sociaux yi soit sur TikTok wala ci internet bi euh, sur les réseaux sociaux di waxal nit ki loo xam ni bokku ci ba ñoom seen bakkan nekk ci xottu gerte ba ñoom ñoo mujj sax jóg na dañuy porte plainte képp ñu xam ne dañ lañ cee dugal mu nekk nag euh, mbir mu doy waar Pathé euh, mbir mi day gën di avancé ndax ñu ñu doon xamal ne euh, ki nga xam ne moom mooy septième succès succès bi dañ koo mujj jàpp te ki ko boole du kenn ku dul papaam waaw am nañ raison am nañu raison li tax ñu am raison mooy gis nga doom boo ko juree mu dëng boo ko boolewul bis buy daanu dina la te li gën a ñaaw ci àdduna mooy sa doom daanu fàq la bis boo yeggee suuf ci kawam ngay daanu kon nit des fois da mën suturaal sa bopp suturaal sa bopp nag weesuwul nga wane ne man mii kat kilifa laa ndax kilifa du question ne da nga war da nga da nga da nga nekk euh, père de famille rek ne man kilifa laa déedéet kilifa da koy doxee da koy wane ba ku la gis respecté la ku la gis naaw la kon papa ji defe naa noonu rek la mën a taxawee su fekkee ne li ngeen wax noonu la demee papa ji noon rek la mën a taxawee man su ma amoon sama doom mu dëng mais kii lu muy jaabante nii tamit su ma amoon sama doom su fekkee ne nit ku dëng la wax dëgg fa yàlla ci boole wax. dama koy xamal ni ko nit ku dëng nga ndax ñàkkul ne yàgg ngeen a dégg nit ray na baayam ñàkkul ne yàgg ngeen a dégg nit rey na ndayam ñàkkul ne yàgg ngeen a nit rey na rakkam wala rey na makkam te li ko indi yépp mooy nëpp nëppal nit boo amee doom bu dëngee wax kaw man loolu ci loolu laa ànd ànd ci loolu nag moo tax ma ne tey su ma amoon doom mu dëng damay xeex ak moom di ko diri mu may dóor ma koy diri ba ba ñu yegg police ma ne ko leen jox leen ko ne leen kii doomee daam ngeen jégal ma diggante euh, ki nga xam ne moom mooy Abdoul ak Nabou Leye la woon. mënuma ci sori mais xam naa ci lu bari mënuma ci sori mais xam naa ci lu bari xam ci bari nag moom moo di ñu bari sax dañu yaakaaroon ne Aziz Dabala ak Nabou Leye dañuy génn am ñoo xamante dañ ñaay xarit lañ waaye xaritu góor ak jigéen bu yàggee génn sax mën na cee am lii laa ci mën a wax waaw loolu ma ciy teg kot waaw. ñàkk insécurité bi ñuy wax ci seen gox bi la est-ce que euh, loolu lu am la. boo ñun dañu am police bu responsable Pikine ginnaaw raay police bu responsable lañu am raar na trop nga dem ci dëkk polis bi di patrouille oto yi fa ne lu ñu taxaw sax ci buntu police bi bu guddi jotee tout le temps ñu ngi daw ci biir quartier bi te loolu li ñu ko may xam nga mooy lan commandant bu ñu respecté ak commissaire bu ñu respecté ak nit koo xamante ni bëgg na suñu gox bëgg jàmm am fa. kon ñun suñu suñu gox barki yonent bi bokk na ci gox yi ëpp sécurité bu fekkee côté ginnaaw raay ngay waxee beneen bi mooy ay doom Pikine lañ ndax lépp lu ñu mel Pikine moo ñu ko def te lépp lu ñu am Pikine moo ñu ko def te Pikine dafa bari ay nit yoo xamante ne ay capot lañ nit ñu responsable wuti nañ kër feneen waaye du ñu fanaan sax fa ñu ne lu mu guddi guddi dañuy ñëw pikin lan moo leen may loolu jàmm ji ñu am Pikine ah, xaritoo bi ñu bi am si seen biir dëkkuwaay muy Pikine ah Pikine benn bopp la boobu noonu ñuy wax loolu dafa ne su ma bëggoon a damay tudd quelques tours waaye duma ma politiqueal kenn damay wax li nga xamante ni lii laa sentir ci sama xol fii ci Pikine moo tax nii laa koy waxee jaajëf xaaral ma wuy téléphone ñëwaat. d'accord jërëjëf Fatou ñu koy gërëm bu baax moom mi nga xam ne ginnaaw raay la fekk bu baax gis nañu sortie yi nga xam ne. Euh, daal dina koy def moom itam ngir ñëwaat ci les faits gis nañ ko à travers ci suñuy nattango boobaak léegi moom itam mu ngi ciy euh, bay waaram euh, ñu ngi leen di fàttali ne ba léegi ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci palais de justice bu Pikine Guédiawaye ginnaaw double marche bi nga xam ne am na keroog dimanche fi nga xam ne moom mooy ci ginnaaw raay di génn àdduna ak ki nga xam ne moom mooy Abdoul Aziz Ba ak Wally boobaak léegi enquête bi di